asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen ñi nekk ci urasul irada yëpp ñoo leen di nuyu di nuyu nekk ci Ahlul Bayti TV mi nga xam ne mooy jàllale bépp xibaar boo xam ne jóge na fii ci Gandigaal te jëm ci àddina bi ci wàllu xew-xewi jamono ñaari xibaar nag lañ ñi leen di indil benn bi ci geeru Ukraine la ak ak Russie ak Europe benn bi ci ñëw Ousmane Sonko gum ñëw Gandigal loolu itam danañ ci wax danañ ci indi ak leeral euh, bu dee ci wàllu guerru Russie bi nag ak Ukraine dañuy njëkk a dugg ci axbaaru Europa ndax guerru Russie bi ak Ukraine dañoo dugal Europe ci problème boo xam ne dafa mel ni kii dañoo nekk ci baynal matraqati wa daan moo di dafa mel ka ni Europe dafa nekk ci diggante marché bi ak dëkk bi borom marché bi naaj dina ba fa dooleem toll te Europe a ngi ci kaw dëkk bi marché bi wàcc ci dëkk bi rek moo tere mu ci ko ci diggante marché bi ak dëkk bi foofu la Europe toll diggante marché bi ak dëkk bi la nekk te tëgg bi yëkkati na ba dooleem jeex te dóor rek moo des moo tax Europe ñu ngi ci coow lu dul jeex boole ko yeneen natt yoo xam ne sax mu ne su ko misaal France ñu ngi mars di talipunu di coowaloo ne ñoom mënuñoo muñeti jafeñal gi nekk ci seen réew te dara yóbbewu leen ko lu may geer bi dox diggante Ukraine ak Russie ba tax riche te ci way gaasam yi nga xam ne moo leen doon jox gaas te sedd baa ngi ñëw ci kanam te bu sedd bi yegsi te ger bi jeexul ba riche yi bàyyi gaas bi mu dellu si waat <coughs> ñoom danañ dugg ci problème boo xam ne mu ne si ko lijjanti <coughs> te itam France wax na américains yi ne leen yéen ginnaaw am ngeen ay réserve gaz da ngeen ñuy jéem a jàppale ci jaay na ko ci prix bu normal américains yi ñoom nee nañ marché noir la ñuy def dañuy jaay seen gaz gaz ci lu seer kon léegi euro ba nga xam ne Amérique daf koy nal comme ni ñuy nale ab euh, limon waaye dimbalewu ko ba loola amee France daw na fi sax ba dem nigeria doon fa lijjanti ci problème mu gaz waaye dafa egg yàlla inondation Nigéria gi fees ak ndox ba place yañ doon roote gaz ak yëpp tey ndox mi egg na foo xam ne ci ab xóotaay ak ab xalaat nañ leneen lu dul jaay gaz ba tax na booba buntu tam France dawoon na jëm fa ngir bëgg mu ubbeeku waaye yàlla makk na ko mars ba nag ma nga ci réew ma xeex ba ak coow la ak taal punu yaag reyante ba ni comboy gars yi ne nañ moom teew yi jógee biir Russie ñëw ba Europe di jox Allemagne di jox Italie di jox Angleterre di jox France di jox réew yu bari ci biir Europe gaz bañ mën a doxal seeni liggéey tuyau yooyu ñu tëj daal ak ak yàq gi ñu yàq benn tuyau bi jaaroon ci biir géej gi daal neexu leen te yàq googu sax nee na ñu wóolewuñ ci américain yi ñoom ñoo ko ñoo ko miine moon dagg <clears throat> te jubluwuñ ci problème Europe pour ñoom seen réserve yi dul jeex ñu di ko jaay yi nam leen neexee pour liñ jotoon a sonn ci wàllu eh, wàllu corona bi ñàkk ko ci ay milliards ñu mën koo récupérer ci Europe ak liñ jot ñàkk itam ci ay milliards te ñàkk ko ci guerre Ukraine bi ñu mën ko récupérer ci Europe loolu ah seen problème la ndax Amérique tamit amoon nañu ay tooli pétrole yoo xam ne dañ ko occupé woon ca e, Syrie ah xam nga ñoom fu ñu dem cim réew dañuy occupé fa alal ja nekk jaxase réew ma ñuy xeex ñuy sàcc di yóbbu comme ni ñu defoon rek ci jamonoy e, Laurent Désiré Kabila ak e, Laurent Désiré Kabila jamono ji mi eh, xeex ak Laurent Désiré général Marisal Mobutu ko Seko Koko Bendo Basabanga nga xam ne moom moo gën a gudd aw ci àddina bi bi ñuy xeex ci américain yi jàppale Laurent Désiré Kabila itam dañ doon gas jamaa bi ak or bi di yóbbu gaa yi nekk ci xeex bi bi ñu jàppale islamiste yi nekk Syrie itam américain yi dañuy gàcce pétrole bi di yóbbu yi ñoom nekk ci xeex bi waaye ñoom itam foofu dañ fi am problème problème bi mooy léeg-léeg dañuy tëg bàgg benn missile ñëw la ci biir bi centrale ba teel te kenn xamul missile bi sax missile bi nga xam ne moom lañ leen dóor bi ñu leen ko dóoree euh, dañoo tool yi nekk ci côté boobu yëpp gars yi dañ koo bombardé mitraillé ko raafale ko ndax xamuñu missile bi fu mu jógee te missile yi kenn xamul fu mu jógee waaye daal léeg-léeg missile jógee asamaan ne yor na ci seen kaw yël salfala du jeex ah nag nee ci waa Iran xamuñu naka la Iran mën a def bay daaneel missile yi foofu te kenn du ko gis ci daal yi waaye daal missile yaa ngi dal foofu loolu itam Amérique seen problème la ginnaaw nag léegi fañ doon jël di fañ doon jëlee alal ji itam léegi ay affaire yi affaire yu seytaane wala boog affaire affaire mo ji saa nga fay xew ah mu euh, dana leen jaaxal waaye France moom fi mu nekk nii dugg ni ci guddi goo xam ne xamul kañ la ci génn ndax euh, français yi ñu ngi marche di cooloo na ñoom bëgg Dakar ñu guerre bi continuer ñuy souffrir nekk ci ay problème ah pour la France daw jëmale bu demee foofu de fekk mu mag ñëwoon na Algérie demoon na eh, Nigéria xam naa ne gaz Sénégal bi gaa yi naa ñi ngi koy root nag góomu ko ndax bu fekkoon ne gaz bi tàmbali naa root kon France moom muraake mu ànd ak eh, lem lay am bankuwaaleeg moom ci biiru biir mbàjjam ci biiru sedd waaye du yëg dara <laughs> waaye gëm naa ne daal gaz Sénégal bi doxagul mbaa boog bëreegul nañ ko bëggee ah xanaa ngeej ngajaga ngajaga te moom dina ko mën a galandikoo te seeti feneen waaye problème boobu moo gaar France moom ba mu ngi ci coow digganteem ak population bi ak digganteem ak Amérique sax ndax bëgg na mu wàññil ko gaz ba mën ko faa jënd Amérique bañ na te itam population bi ne nañ il ñu bàyyi gazu Russie bi mu ñëw ndax ñun moonu doy te ci li ñuy am jàmm bu loolu jàllee Allemagne itam mook mook Angleterre noonu la gars yi ñu nga ca xam nga Angleterre amoon nañ premier ministre bu jigéen bu bees waaye gars yi dañoo marché di ko soulèvement ba daaneel ko fi mu nekk nii eh, Johnson ma fa nekkoon ma ngay ji ma gembuwaat fu bëgg faa del ci keneen a ngay gembuwaat ndax que gars yi gala gala jaane nañ këli daaneel ko te dara taxul lu dul ah, guerre bi ak gaz bu ñàkk bi ak problème yi nga xam ne Angleterre am na ko loolu moo ko indi ak inondation bu dul jeex itam ànd ak ngelaw lu kenn xamul nu mu yem ak dënnu yu asamaan ànd ak ki melax mi ci biir Angleterre di ko rajaxe moom tamit loolu jaaxal na fa ñu bëri Allemagne itam kazalika naka noonu moom itam problème mu gaz ma ngi koy dikkal population ba di ngay wàcc ca mbedd ma di cooloo di sànni xeer di di di mars ah, ah, daal ne daal ñoom daal d'accord ci guerre bi ñuy def ci diggante Russie ak Ukraine ñoom Ukraine du leen yóbbaale ci musiba ndax Ukraine mënut a taal diggante guerre am ak Russie ci kaw ne day bokk ci OTAN te Russie d'accord ci te ñoom bañ leen di bàyyi ñoom waa Russie ñuy tàggaloo dañoo bokkoon ca signature yi ñu signé woon mooy du ngeen bokk ci otaan ndax bu ngeen bokkee ci otaan otaan day am digg Russie te Russie bëggul loolu te loolu Ukraine xam na ko américains yi xam nañ ko waa xam nañ ko Russie xam na ko Ukraine nag dem ba ci bi mu bëgg a triander loola Russie na ko lool nag doo ko triander loola moo leen jotale ba guerre ba déclaré léegi nag guerre bi dem na ba ah allemand yi ak fran ak anglais yeeg français yeeg ñëpp ñu ci bëgg am ay problème yoo xam ne problème mu économique la population bi wàcc na di caw kenn xamul fu ne dimbu ci ak ci bëtam bu loolu jeexee ñu jàll nag ci Russie ak Ukraine ak guerre ba fa ne guerre bi mi ngi continuer ci diggante Russie ak Ukraine tubaab yi metti na ci ñoom ba egg ci lool waaye ba léegi ñoo ngi continuer di dajale ay arme ak xaalis di dimbale Ukraine pour mu mën a daaneel Russie ah, ba léegi nag guerre ba ña ca waaye xam nga am na lu ñuy wax alqunbulatul xasiratul ishaiya alqunbulatul xasiratul ishaiya la waaye nag artisanal lay doon comme ni ni bombe artisanal yi yi amee moom amul doole ji mën a raafal ay tabaxaka rajjax am riiw comme na bombe atomique mel waaye nag bu takkee mën naa def ab ya ab ab ab def fa ishaaat te ishaaat mooy mu jox li mu poissonné ña fa nekk seen xëtër yi di nëb seen xol yi di nëb ñii dee ñi di leen indil ay ay cancer rek lu kenn xamut xunburatul xasira boobu nag dañoo wax ne mi ngi ci biir Ukraine Ukraine mu ngi jiiñ Union soviétique moo fi indi bombe bi bëgg bu bombardé mu kalaate fi léegi mu jiiñ ni ko te fekk na ñun defuñu ko yéen si nee na déedéet waa otaan ñoom ñoo defar xutbulatul xasira jox ko euh, euh, euh, waa ji bëgg mu dóor ko ci donastique wala logantique bu ko defee ne yéen moo ko fi dóor su boobaa ñu am bunt ci mën a dal ci kawam ñaareel ba itam membre permanent yi nga xam ne ñoom ñoo dul génn ci conseil de sécurité bu Nations Unies te gars yi di bëri boobu ba léegi bëgg caa génn riis yi xañ ko veto ñu mën caa jaare génne ko xañ ko bitu loolu la riis wax ne moom la tubaab yi di saxee ba loola jàllee itam am na benn barrage bu mag boo xam ne dex gu rëy gu jaar ci biir Ukraine day tuuri ji ci barul aswad dex googu deuxième guerre mondiale ba almaa yi bëggee jaaxal riis riis dafa bombardé woon barrage bi dex gi labal ay fukki junni nit nag dee woon nañ ca jamono jooja waaye freiné woon na nazis naziste bi bari si mën a def riposte ba mën leen di génne foofu la ko jaarale woon léegi nag dex googu dafa am baras boo xam ne mooy baras bi gën a riis ci àddina ah riis yi nee na Ukraine da ko miine bëgg koo kalaate jiiñ ko ko Ukraine nee na riis yi moo ko miine bëgg koo kalaate pour ne ma ndax jax goo ndax baras boobu buñ ko xasee kalaate moom ba mu màbb dina yóbbu ci ndox loo xam ne ay milliards milliards milliards milliards mètre cube lay doon dina dox diggante waa Ukraine ci ñu mën a continuer di songu Donetsk ak Donbass waaye nag da dul yem ci ñoom dina labal yeneen réew yi dend ak ñoom dina wàññi nag sax jasiratul xarm si jasiratul xarm ndax am na lu ko baras bi di jëriñ waaye Russie moom nee nañu loolu jaral na ko ko waaye mu maasale Ukraine ci ndox mi jaral na ko loolu riisi nee na loolu amut xalaatuma koo def ndax su boobaa je su bu jeexital xaram dañuy am problème ci wàllu ndox moomu waaye waaye Ukraine moo ko bëgg def ngir bëgg a makaa jiñ ñu ngi réex ci loolu ci seen diggante muy Ukraine ak Russie li ci topp mooy maanaam Tchernobyl ak Zaporijia Tchernobyl ak Zaporijia ba Union soviétique di nekk Union soviétique Ukraine bokk ci centrale nucléaire yi gënoon a rëy ci Union soviétique Tchernobyl la ak Zaporijia waaye bi ñuy dagg nag Ukraine dañ koo dagg Tchernobyl ak Zaporijia nekk ci seen loxo waaye ci kaw nag américains yi dañoo waxoon ne Ukraine lépp loo yor ci ay bomb atomique da koy delloo Russie mu delloo lépp yi ndax dañoo ba dañ ne ñoom dañoo bañ bomb atomique yi di tasaaroo ci biir àddina bi ba loola amee nag lañ ko door a dagg jox ko indépendant mu génn ci Union soviétique Russie dem mu dem bi àddina yi dox nag di dox di dox di dox di dox di dox ba léegi euh, Ukraine bëgg a dugg nag ci OTAN ànd ak américain yi Russie ne ko loolu bokkuloon ci liñ ci ñeente dama laa waxoon ne bàyyi nga delloo moom mboolem bombe atomique yi ma la joxoon ñu tëj sa ñaari centrale nucléaire yi waaye <clears throat> doo bokk ci OTAN <clears throat> loolu lañ jubóowul te léegi bëgg ngaa bokk ci OTAN loolu du am loolu moo indi guerre ba daal di am Russie tam ba guerre ba amee daa njëkk songu ñaari dëkk yooyu nga xam ne fi la Tchernobyl ak Zaporijia nekk daal di koy occupé daal di yebal Ramadan Xadiroof mi dëkk Tchétchénie mu yebal fa ay soldaaram ñuy garde ñaari centrale nucléaire yooyu ndax bëggul gaa yi dem daal di fay defar bombe atomique léegi nag loolu moo tax ñu ne xunbuyatul xasira bi nga xam ne dañ koy defar te eh, ñu di ko defar mu nekk artisanal américain yi ñooy jàppale Ukraine pour mu defar ko waaye Ukraine taxaw na ci defaru ay bombe atomique am ndax nee na riche yi lim ko bëgg a noggatoo mooy bombe atomique yi mu am riche yi tamit mu nga teg tànk ca ñaari centrale nucléaire ya ba noppi nangu ñeenti région yoo xam ne ay riche ñoo fa dëkk ñooñu wate ne ñu bëggatu ñoo bokk ci Ukraine ci riche la ñuy bokk loola ca la ñu nekk américains yi doon jàppale eh, eh, eh, waa ji itam Volodymyr Zelensky am nañ problème ndax ñi nga xam ne ñoo di eh, eh, ñi ñuy wax eh, républicains yi ñoo nekk ca nguur ga waaye démocrate yi lañu wàccee muy ñoom ñoom ñoom ba ñoom ñoom waa ji ñoom ki fi nekkoon ku na xarit deret kooku te almaa bi boroom karaw gi niroog përëm mu almaa xeetu almaa la moo fi nekkoon li yàggu fi jóge sax waaye mhm. waaye fi mu nekk nii ñoom itam dañoo nekk ci xëccoo ci wàllu congrès ba congrès ba nag daanaka mooy assemblée nationale ba ah su fekkee ni nag eh, eh, léegi ah, maanaam ki nga xam ne moo fa njëkkoon a nekk président te man mënumaa fàtte mënumaa mokkal turam bi te bo te jiite woon na eh, démocrate ya ëpp na doole ca congrès ba ah, Joe Biden nii fa doole kon Amérique dina tee ndimbalam ci Ukraine te kon soo moytuwulee waa ji dugg ci kàmb ndax kee dina ko ndékkee balaa midi jot loolu itam tax na Zelensky am na problème ndax ña ngay xëccoo foofa ca congrès ba te bu fa démocrate yi ëppee doole kon ndimbal li day yem ndax waa démocrate yi nekk Amérique ñoom d'accord ci guerre bi d'accord ci Ukraine bokk ci ci ci OTAN ndax dañ na loolu si ñëwoon ko woon ak Union soviétique foofu tamit problème ba nga fa la ca mooy yoon wi nga xam ne ci la Europe di jaar ak Amérique di indi Ukraine ay ndimbal yoon woowu Amérique maanaam Russie dafa taxaw ci dagg ko ndax attaques yi mu mujj attaques yëpp ca boor boobu ko attaqué te yoon woowu bu ko xasee dagg ba gaa yi dootuñu fa mën a tee jaar yoon wa féetee eh, ca xar ba la ñuy mën a jaar te foofa ay montagne ak dajo fa nekk yu mel ni Afghanistan foofa yoon wa jaar ga du neex te nañuy def ba indi bagage yi itam du yomb te lañ daan indi dootul mën a toll ne la ñuy daan indi bu njëkk te kon bu Ukraine demee weer waa ji dina ko daaneel te Russie taxaw na ci dog yoon wi nga xam ne fi la gaa yi di jaar di indil Russie eh, di indil Ukraine ay bagage loolu mooy li nga xam ne ci gàttal danañ leen ko mosal ci biir xibaar yooyu ndax bëgguñu guddal lool buñ del ci waatee daañu gën a leeral waaye daal guerre ba ma ngay continuer Russie ma ngay gën di pousse Ukraine ma ngay défendre boppam waaye lay riisi jotoon na dagg ne ko wa ndix moom ba léegi ikren mënagu caa jot ramadan xadiruuf yónni na ñetti doomam ñu dem ca geer ba moo di ceeceeli bi mooy xaadir bi ñooñu itam def nañ fay jaloore sax ba jàpp fa ay prison ba indi leen indi leen seen léegi nag euh, Poutine nag moom dafa jommi ndax Poutine dane euh, xale yi xale yi ramadan xadiruuf yooyu ki ci gën a mag dix-huit ans la am te dem nañ ci guerre ba jàpp fa ay ay ay ay ay ay otage ba indil ko seen papa <laughs> ci ci seetee nii nee moom loolu lu ko jaaxal la waaye daal guerre ba ñi nga ca ñu ngi continuer bu dee ci côté Biélorussie bi tamitam ñii ne ñu fukki junniy soldaar la ñii ne juróom euh, ñii ne ëpp na fukki junniy soldaar yoo xam ne Russie daf ko yóbbu Biélorussie mu ñu ànd ak waa Biélorussie dem ba ci boori frontière Ukraine bi ñu baase fa ñii nee nañ dañoo nar a attaqué ci boor boobu pour jaare ko foofu nangu capital bi ñii nee nañ dañoo bëgg leen a déstabiliser ndax si boobaa il faut danañ am bâton yuñ fa teg pour garde côté booba su ko defee seen doole doon a niiwee ca côté ba ñuy xeexee loolu yëpp ay xibaar yi ñu gàttal la buñ def si waatee daañu ko leeral ba léegi ñu dabaatal bokk na ci li nga xam ne ci xibaar yooyu la bokk Eh, maanaam ikren day defar ruus harbiya inshitariya day defar xanaabil hydrogénia day def xanaabil eh, plutonium waaye yooyu muy defar yëpp ne nañ américains yi ñooy trafiqué afrique di ko fa dugal pour di ko jàppale xanaa xanaabil ruus harbiya inshitariya nag moo di missile yooyu nga xam ne day dem ba tiim fa muy dal explosé ci kaw asamaan def trop ay bomb yu ndaw yoo xam ne yu dul jeex du xaaj la wasaaroo foofu yëpp nag fu foofu foofu mu kalaatee rek foofu musiba nga fa loolu mooy xanaa bil insitaria la ca topp itam ne nañu ñu ngi koy defal ñu ngi koy jàppale di ko indi indil plutonium pour mu defal ay ay ay ay grenade ay bomb yoo xam ne ay bomb plutonium lañu yooyu yëpp nee nañu américains yi ñu ngi koy fexe pour mën a jàppale Ukraine waaye daal ba léegi ba léegi daal doole ji daal ci Russie la ëppee doole ba léegi daal mbir mi daal yi daal moo njatt njattal xirandi Ukraine Amérique wun taxaw fële naan ko mboqimil ak lu galgalal waaye yi naan ko set loxo ba duggee ci biir bëri bi rek danaa la ci boole te Amérique bëgg te bëgg dugg ci bëri bi loolu moo tax en yàlla tënd ci ci sellal ah léegi nag ah, dafa am ay mbokk yu ma doon laaj di ma wax ne dañoo dégg ne maanaam ma ñëw ci xibaar yi Ousmane ko ci Gandigaal ndax ñëw na fi jaar na fi dem na ba mu fi jaaree dem ak léegi it te waxuma ci moom dara wax dëgg yàlla waaye Ousmane Sonko ñëw na Gandigal euh, bi mu ñëwee Gandigal it fii la ma fekk ci biir Gandigal euh, li tax ma di ko leeral ci sama mujju xibaar itam pour mu leer ci doomu aadama yi loolu laa ci jublu euh, maanaa dañ ma woo di ma wax ne dañoo gis ci ci ci internet bi bi Ousmane di def tournée ñu wax ne dina dem Gandigal dem kër imam Cheikh Gueye Gandigal te gisuñu la loolu am na ñu mu ko laaj am na sax sama mbokk bu nekk Italie boo xam ne bi mu déggee xibaar boobu ah, mbokku taalibe la nag du mbokku deret waaye mbokku taalibe la bi mu déggee xibaar boobu woo na ma sax ne ma ah man de maa ngi gis ñi jataay bi nga xam ne foofu la ñuy teeroo Ousmane Sonko te gisuma la fa te dañoo waxoon ne bu ñu demee Gandigal danañ dem kër imam Cheikh Gueye Gandigal ma ne ko ah man de maa ngi sama kër <laughs> maa ngi ah, eh, yàlla dogal ma génn ba doon doxantu dem ci garage Mbuur am sama benn doom bu bu ma bu sant Gueye di taalibe sëñ Xaadim naar moom sëñ Mbàkke Soxna Lo mu daal di ma ne félicitation ku tedd ku sell ki ñëwoon na sa kër ma ne ko kan ma ne ma Ousmane Sonko ma ne ko ah Ousmane di gisuguma ko gisuma dégg naa ko nag ci biir Gandigaal waaye ñëw sama kër ah mu ne ah ñu annoncé ne eh, Ousmane ngi noonu day dem këru Cheikh bi Gandigaal ma ne ah déet Ousmane newuma day ñëw sama kër newuma Ousmane na ñëw sama kër loolu daa war a leer Ousmane newuma day ñëw sama kër newuma Ousmane Sonko itam ñëwal sama kër ñaar yooyu moom lu ci nekk daa war a leer ndax jullit buy wax day wax lu leer Ousmane woowuma ne ma damaa bëgg a ñëw sa kër demande ma Ousmane Sonko pour mu ñëw sama kër ñaar yooyu moom dama koy wax ba mu leer nañ waaye nag toog naa ba ñi fi nekkal Ousmane nee nañu euh, yebal sama benn doom ne ko neel sa papa imam yi dañ leen di wër ak boroom dëkk yi te danañ ñëw sa kër ma ne waaw dégg naa dégg naa leen ba bis bi jotee itam damaa waroon a xëy dem sama kër gi ci mbuur am lu ma fay liggéey ñu woo sama doom ne ko neel sa papa na toog xaar ndax Ousmane day ñëw këram ma toog xaar di toog di xaar di toog di xaar ba dégg ne Ousmane ñëw na Gandigaal ba dem na Malicounda jàll na ci kaw jëm seen tubaab loolu laa ci am aw ci leneen leneen lu ma mën a wax lu dul loolu daal loolu laa ci am awma ci leneen xamuma lan moo tax ñu annoncé ne dañuy ñëw sama kër xamuma lu tax ñi ñëw ba fii te it ñëwuñu sama kër loolu moom mënuma caa leeral lu bari xëy na nag wewi nag danañu wax waaye Ousmane bu ñëwee Gandigaal te am fi ay membre dafa war a am ab siège social bum fi am boo xam ne bu ñëwee ca foofa lay ñëw pire daal am nañ fi siège social buñ fi nekk muy parti Serigne Moustapha Sy Nasru am nañ fi siège social bu fi nekk buñ ñëwoon dinañ am fu ñu dal ci kër goo xam ne moom lañuy fekk si waaye Ousmane Sonko xamaluma ko fu mu fu mu war a dal ci biir Gandigal foo xam ne waa partim ñoo fa nekk loolu it Ousmane da ko war a xam waaw amuloo fi c'est social moom ndax xamuma ko fii ah, xale yi ndaw yi nag danañu jóg bëgg benn leader ànd ak moom di coow waaye bu ñuy coowee ba leader ba ñëw fan lañ koy dalal Ousmane ñi ko doon teeru moo di waa kër Macky Sall ak waa kër ah, Ousmane ah, waa kër Abdou waa maanaam waa PS ñi ko accueillir dalal ko mu mu demoon ci seen kër ñooñu moom waa APR lañu ak waa PS ñooñu ñoo doon dalal Macky am ñoo doon dalal Ousmane Tanor ndax am ñoo doon dalal Ousmane Sonko ndax man it lu may wax day leer bu fekkee ni kër Baye Cheikh Diagne ga mu nekkoon Baye Cheikh Diagne ca jamonoy Senghor jaar ci Abdou Diouf ba léegi ci PS la nekk di responsable politique PS boo xam ne mosu caa jógee doomam di monsieur le maire Thierno Diagne responsable politique bu PS la. musu caa jógee fa la nekk ba léegi ba fi may wax ak yéen Thierno Diagne ci PS la nekk nekkul sax ci APR mais ci PR ci PS la nekk euh, bu fekkee ne nag euh, wàllu APR muy Macky Sall moom Macky Sall moom kër Magu Thierno fa la am base jabaru Magu Thierno moo ko représenté fii ci Gandigaal te famille boobu ñoom ñoo dajeel ñoom ñoo doon teeru Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñi la doon teeru ñi di ay kilifa yi ñuy présenté waa APR la ak waa PS ci biir Gandigal loolu dafa war a leer ndax su ma ko leeralul keneen du ko leeral te man maa fi dëkk waaw amaa ñi ci des nag ah du ñi mag ay gone lañu am na ci ñoo xam ne maanaam xalifa lañ àndal ñu ànd ak xalifa Sall nag mën nañoo mën nañoo teeru Ousmane Sonko fekk xalifa ngi ànd ak Ousmane Sonko waaye daal li may leeral daal mooy Ousmane xamaluma ko siège social fii ci biir Gandigal boo xam ne waa Pastef ñoo ko fi samp xamaluma ko ko fi benn ñaareel ba itam ñi ko doon teeru fii ci biir gaal mooy waa kër Abdou Diouf ak waa kër Macky Sall APR ak PS ñoo la teeru ci siège socialu PS it fa la demoon ndax kër Baye Cheikh Diagne mooy siège socialu parti socialiste fii ci Gandigaal foofu la man Sonko demoon xamut xamut nag xaja koy baw ku xamut xamut xamut xamut xam xam xam ku xamut xamut xamut xamut xam xam xam ku xamut xamut xaj moo koy bawee Ousmane nag ci ñi xamut xamut la bokk waaye ñi ko teeru daal donte dañoo yor responsabilité borom dëkk itam waa APR ak waa PS ñoo doon teeru Ousmane Sonko ci gàlligaal su ko weddee na na yónni ay nitam ñu ñëw ñu ñëw ñu seet ko ba xam ndax sax gi wax na dëggam déet ah nit ñi nag ay nax yiw na la ñu am na nit ñoo xam ne nag ñoom fu tooñ ñi dal foofu ñu dem fa ca des maanaam bu ñu déggee ci biir pëj yi ñu ngay xool beneen ba caa jàllantu moo tax ma ne Ousmane Sonko bari na ñu ko wër ñoo xam ne bu yéegee te lim digge mu bëgg koo def danañ dégg coow ca diggante ba ak ñoom ndax li tax ñuy dégg coow mooy ñooñu seen intérêt donc moo leen intéressé loolu daal laa mën a leeral ci problème mu ñëw Ousmane Sonko fii ci biir Gandigal ah Cheikh nag moom eh, demul pénc <laughs> demul cëng dikkut jama ndax fekk Sénégal mi ngi nekk état laïque man Cheikh Dieye du ma nekk responsable politique mukk ci àddina fekk Sénégal mi ngi nekk état laïque Cheikh Dieye du nekk mukk responsable politique ci biir Sénégal loolu moom eh, man maa ko xamal sama bopp ndax dawlatul kufru moo am ak dawlatul imaan waaye dawlatu bayna bayna amut imma an takuna muminan aw takuna kafiran waaye last bi kafirin wala bi muminin wala bi munafiq loolu moom cheikh mënu ko dégg te ñaar rekk am tool yonent yàlla Muhammad ak tool firawna boo béyul ci tool Muhammad yaa ngi tool yaa ngi béy ci tool firawna fii ci senegal nag dañoo bëgg a jël bi tànk teg ko tool Muhammad jël bi tànk teg ko tool firawna te tool firawna bis bu nekk mooy ëpple mooy ëpple luñ koy bayal kon nag bu loolu amee Cheikh moom day toog këram digg yi ñuy digg réew mi nag ah, bu ma ci xoolee koo xam ne xëy na ak diggee moo gën a ëppal njariñ waa réew mi te réew mi sax nu ma yërëm leen danaa jël sama carte jox ko kooka ngir jàppale réew mi ñu génn ci toskare ba fi Abdoulaye di nekkee ba toskare bëgg a amit man damaa dem jàppale réew mi daal di dem woteel Macky Sall pour lan pour bëgg a génne Sénégal ci biir toskare Macky mii itam bu fi nekkee ba nit ñi nar a toskare te moom mandaam bi jeex na mën na maa woteel Ousmane Sonko pour ëppale waa Sénégal ci toskare ndax moo gën mu leen di dóor ak di leen tëj ci ay kaso <laughs> loolu moom musiba la loolu moo tax euh, daanaka man xootuma daal ci wàll googu sama parti daal amagut kàttan ak woote te sañagut a woote ndax man sama parti mooy l'islam te l'islam du àtte fii ci Sénégal population islamique nag moo fi nekk fii ci Sénégal waaye république islamique amul fii ci Sénégal population islamique bi tamit population satanique bi moo leen ñoo leen séddoo ñoo leen séddoo ñoo leen séddoo population satanique bi nga xam ne ñoom ñooy wooteel seytaane ñoom ñoo séddoo population islamique bi fii ci ci biir réew mi ah, ah, buñ demee ci suñu muntaxaa ne ko ñaanal lu dañoo bëgg a gañe bañ ñu sëñ bay bëgg buñ demee ci bu ñu demee ci seen bay ci Mansour ne ko ñaanal nu dañoo bëgg a gañe buñ demee ci beneen xalifa yi ne ko ñaanal nu dañoo bëgg a gañe waaye nag ñoom seytaane la ñuy liggéeyal ndax gëmaguñu ne islam mën naa atte am réew nun nag loolu la ñu gëm waaye nag laa ikraa fi diine la yeneen bi yàlla wax yeneen bi du ñu forcé kenn ci ne tey nga atte l'islam du ñu fa bi di xeex du ñu rey suñu bopp du ñu rey keneen duñ ci xuloo duñ ci xeex waaye suñu opinion daal mooy buñ seen islam moo dox ci Sénégal ndax quatre-vingt-quinze musulman ñoo fi nekk euh, quatre-vingt-quinze musulman fu ñu nekk te carte di maye te islam di taxawal état war na faa mën a taxaw waaye bu fekkee ni loola te am itam te mbaa bu amee mu jur musiba euh, allahu yad'u ila daari salaam wa yahdi man yashaa ila siraatil mustaqim yàlla ci kër jàmm lay woote fekk terewuñu laa julli terewuñu laa woor terewuñu laa natt asaka terewuñu laa dem makka terewuñu la lu bëree baree bëri ah li des muy yi nga xam ne moom loi nguur exécutif ñoo koy exécuté te ñoom ay jullit lañu te exécuté wuñ ko ñoom loolu seen responsabilité la keroog yomal xiyam waaye yow mi nekk simple citoyen rek te dib jullit moom sàmmal sa diin te jàpp sa njàmbur ba ba réew mi bëgg a dem ci yoonu yàlla su boobaa nga ànd ci ak ñoom waaye nag réew mi moom jaaru ñi ci yoonu yàlla ci yoonu seytaan leen jaar amaana Ousmane moom bu ñëwoon fii tamit la ma ko waxoon rek laa koy wax la ma waxoon yëpp di ko dégg it moom laa koy wax du ma ndong daal bokkuma ci moo gën a wóor waaw lekkuma ci ndaw ndawal gi sama ah, sama blex nii nit jullit bu nekk war na koo moytandiku coowam ak ndaw soosu bañ ko dee coow it dama ne ah loolu moom mun ma cee d'accord ndax Ousmane dama koy dégg muy wax ci yàlla ak yeneen bi di wax ci diine ah, ba mu ne dem naa fa maase nañ ma waaye nag lañ ma wax defuma ko it laa ne ah kon yaa may seytaane ci sa bopp aw yoon moom may seytaane ci bopp bu ci boppam aw yoon ndax yonent bi lu al Ousmane Sonko gàtt gàtt àll bu war naa xam ne yonent bi nee na góor du wéet ak jigéen judul jabaram te araamu ko jabar ci benn néeg lu dul ni seytaane moo leen ñetteel invitation seytaane nag ku fa dem yaa fa yóbbu sa bopp moom nag nee na xamut woon nee na xamut woon nee daal laaj benn ustaas ustaas ba ne ko kooka nag du ab ustaas ab mustaas la waaye bu doon ab ustaas du la wax loolu waaye li nga gëstu ci diine Ousmane yaakaaroon naa ne sa xam-xam war naa egg ci ne araam na ci góor gu gëm yàlla muy wéet ak jigéen cib néeg te jigéen ji araamu ko waxatumaa nag mu di ko tërale ko wëlbatee ko bës ko mocc ko wëndeel loolu moom njuumte la loo xam ne sa diggante woon nga ko def ak sa borom tuub nga ko yàlla jéggal na la ko te xam naa ne tuub nga ko yàlla jéggal na la ko kon boobu nañ ko saase beneen page jàll ci leneen waaye daal ah, Ousmane ñëwul sama kër na leer waa Sénégal yëpp Ousmane ñëwut woon Cheikh kër Cheikh Gueye Gandigal annoncé nañ nag ci seen télévision boobu ànd ak ñoom ne kër Baye Cheikh Gueye Gandigal dañ jëm waaye kër Baye Cheikh Diagne Gandigal responsable politique PS lañ ñëwoon <laughs> na leer wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa